mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi fii ci Touba ci kër Serigne Afia Bousso al imaam ngir waajal bis bu màgg di guddi gu màgg di guddi gi ñuy fàttaliku ganek àddina suñu sang ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, guddi googu nag am solo gi mu am solo tax na jataay bii ñu amal ko ngir waajal ko jataay bi nag ñi ko séq di ñaari mbooloo moo xam ne ñaari tuur la waaye yenn jenn jëmm la muy mbooloo mu mag mii nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk lépp lu aju ci wàllu xam-xam ci dëkk bi ñu koy wax daairatu rawdu rayaxiin sëriñ ahmadul badawi moom cheikh mohamadul fadal nekk ci bopp ba ak mbooloo mi ñu tuddee daairatu muqaddamatul xidma te ñu nekk ci jumaay tuuba di ko saytu di ko toppatoo sëriñ afiya buso al imam nekk ci bopp ba ñaari mbooloo yooyu nag ñu jotoon ndigal ci ki fi nekkaloon cheikhul xadim ngir ñu maase ànd di dundal guddi gàmmu ci barab bu tedd bii di jumaay Touba loolu moo waral jataayub tey bii ngir waajal guddi gàmmu gi euh, ci biir jataay bi nag ñi ngi fi ak ñi bokk ci mbooloo yooyu muy lenn ci membre yi daaira muxaddamatul xidma ak lenn ci membre yi daairatu rawdu rayaxiin ngir war a waxtaane lu aju ci guddi googu dinañ jox kàddu Serigne Sam Boussa Abdourahman mu wax ci solos gàmmu ak ni ko Serigne Touba fonke woon ak ndigal li ni ñu ko jote woon ci Serigne bi ngir war koo taxaw fii ci jumaay Touba suñu noppee nag dinañ jox kàddu gi Serigne Abdoul Ahad Bousso Thierno mi nga xam ne mooy wax ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma ngir ni ñu war a taxawoo gàmm gi waajale ko ko organiser ko ko ci jumaay Touba ak ni ñu bëggee nit ñi ñëwee ci gàmm googu kon loolu mooy jataayu tey bi incha allahu taala kon du ñu guddal dañuy jël kàddu gi rek jébbal ko Serigne Sam Bousso Abdourahmane mu dikk ak ñun ci solos gàmmu ak ni ko suñu sang ba cheikhul xadim fonke woon ak ni ñu jotee ndigal li ci ki fi nekkal Serigne Touba kon Serigne Sam bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nu ngi nuyu mbokki jullit yépp di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii ñu nekk muy weeru gàmm weer wi nag buñ ci duggee xel yépp day dem ci ngën ji mbindéef alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne xam nañ ne mooy xéewal gi gën a màgg koo xam ne yàlla xéewale na ko doomu aadama yi suñu boroom moomu nga xam ne moo def yonent bi muy xéewal gën a màgg wax ne mooy yërmandey jaam ñi moo ñu sant ñu waxtaane xéewali suñu borom wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis kon dafa mel ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu digal ñuy waxtaane xéewal gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon na ko te xéewal googu nag mi ngi feeñ kon ci weer wii mu doon loo xam ne jullit yëpp yi nga xam ne dañoo jaar ci tànki saxaaba yi fonk nañ ko di ko màggal sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nag bokk ci ñi gën a ràññiku ci fonk bisub yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàgg ko màggal lool ndax ginnaaw wax na ahyaytu mawlida nabi min asasi bu ñu nee associ ku ne xam ne 1301 te ñi ngi ci 1443 kon day mel ne téeméeri at ak ñeen fukk ak ñaar mat na ko nga xam ne buñ ko xoolee dana nekk 1884 loolu kon yàgg la mu doon loo xam ne xamee nañ ko ko mu bind ci lu baree bari bind ci ay njëriñam tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati wax ci ku dem ci jazbul qulub da nga gis lu baree bari ci ngëneeli màggal guddi gi mu doon loo xam ne dako doon def waaye ay ak njabootam ñëpp di ko di ko def pinc sëriñ bi yëpp fu ci nekk ña ngi ko fay gàmmu ci anam goo xam ne dañ koo jëlee ci sëriñ bi ci boppam nam ko doon gàmmoo njaareem ñuy jàng barzan ji di jàng jazbul qulub mawa mawahibun naafi'i ak am amdaax boole ci ak jàng alquran ak lépp loo xam ne tudd yàlla la ak xasida yi loolu ñu xam nam ko daan defe ca njaareem loolu it boo demee ci penc ñi mag ñim yaroon da ngay gis noonu lañ ko fa daan gàmmoo looloo tax ki nga xam ne ni ko sëñ Abdoulaye Diop waxe léegi ki nga xam ne moo fi nekkaloon sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu Cheikh Sidi Mokhtar yeesal ndigal li nga xam ne ñi ko jiitoon ñëpp daan nañ ko digle di ko fàttalee di ko soññee mu jox ndigal daairatu rawdu rayahin ànd ak daairatul muqaddamatul xidma nga xam ne ku ne xam na leen ci dundal guddi gàmmu ñu ànd ko bëgg koo fas yéenee dundale ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Touba radiyallahu anhu doon dundale ca njaareem ñu ko koy defal fii ci Touba ci jumaam jii nga xam ne ba muy tàmbalee gàmm booba sañcagu ko ca bi mu ko sañcee waxoon na ne dundal sunna si Yonent bi sallallahu ak jaamu yàlla moo tax mu nekk fi kon fépp fu ñuy dundale gàmmu yey yelloo na fa waaye barab bii bokk na ci gën a yelloo kon nag moo tax ñu jot ndigal ci suñu jëwriñ muy sëriñ ahmadul badawi ànd ak si imam sëriñ afiya buso ñu fas yéene koo def nañ ko daan defee ànd koog suñu mbokk yi nga xam ne ñooy daayiratu muqaddamatul xidma ni ko ni ko ni ko sëriñ Abdoulaye Diop waxee nga xam ne jenn jëmm la ci ay tur kenn ku nekk sëriñ bi am lum la féetale nga di ko ko liggéeyal ñoom ñëpp ñu maase ànd ci dundal guddi gi kon ñuy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu àggale ñu ci ci jàmm di ko ñaan lépp loo xam ne yéene nañ ko mu mottaliku ca lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci suñu borom euh, nangul nu ko te ñu ñaanal na kii nga xam ne moo fi nekkal cheikhul xadim cheikh mu muntaka nga xam ne dafa yeesal ndigal li ba noppi di ko di ko taxawul boppam lépp lu ci war mu di ko ci def moom it ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko te lépp lum naal ci liggéeyal diine ji liggéeyal e, yoon wi suñu borom kàttanal ko ba mu yeggale ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Sam Bousso Abdourahmane ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko yaakaar naa leeral na solos gàmmu ak njëriñ yi mu am waaye itam leeral na Serigne suñu Serigne Cheikhouna Cheikh Ahmadul Khadim ni mu ko fonke woon ndigal yi itam ni ñu ko jotee ci ki fi nekkaloon Cheikhul Khadim mooy a Cheikh Sidil Muxtaar ngir ñaa mbo ñaari mbooloo yooyu nga xam ne benn jëmm la maase di ko taxawal fii ci jumaay tuubaa ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mii nga xam ne ni mu ko waxee léegi taxawaay bu am solo la ci taxaw yeesal ndigal li waaye ànd koog mbooloo moomu di ko dundalandoo yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mooy ko wér. kon ginnaaw bi Serigne saam leerale gàmmu geeg li ci aju ak defin wi waaye faaw itam nag barab biñ koy defee mu laaj nag ay taxawaay. taxawaay yooyu nag moo waral ñu bëgg a jël kàddu gi jébbal ko sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne mooy wax ci turu daayiratu muxaddamatul xidma ni ñu koy waajale ni ñu koy amale ak ni ñu bëggee nit ñi ñëwee fa noonu ngir dundal guddi gi ba ni ko borom santaane woon cheikhul xadim ni mu ko daan defee ci njaareem ñu fexe ba defee ko noonu ba am ci daje ceeg li ñuy sàkku kon sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno kàddu gaa ngi noonu aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko di am mbégte lool ci jataay bi nga xam ne teew nañ ko fii ci kër Serigne Afia ngir waajal bis bu tedd boobu ni ko Serigne Ablaye waxe léegi ak sëriñ Sam ci gàmm gi nga xam ne am nañ ko di ko amal mu yàgg lool ci ndigalul ki fi nekkal Xaadim Rasul tey jii Cheikh Mouhamadul Muntaxa nekk fi di ko yeesal di ko ànd ak ñun nu nu rafet rafet loolu nag kon jaadu na su fekkee ne eh, ñi ngi koy waajal te ñu koy defee si ci jumaa ji eh, doxalin wi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy doxale gàmmu gi te sëriñ Sam junj ko léegi ñu di ko defee ni ko sëriñ bi daa daa defee ni sëriñ bi daa gàmmoo jàpp naa ne it nag eh, sëriñ bi moom moom moo gën a xam ñu bëri ci mbindeef yi moo leen gën a xam ni ñuy dàkkee mbégum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nim daa gàmmoo jàpp naa ne ku ko gàmmoo soo doon diir wala ngay dàkk jam nga gàmm nag di fukki fukkeelu guddi ak ñaar ci gëstu bi ñu doon def ci kilifa gi demoon ceeyeen gàmm ji wax nañu ne sëriñ bi daf ko daa gàttandoo fukki kaamil ak ñaar ak ñetti kuréel yooyu benn bu ci nekk ñu jàng fukki bayit ak ñaar ak bunt barsan ji Euh, xasida ak barsan ji yi nag li tax sëriñ bi daa ko jàngulu kon xam nañ ne xasida gu barkeel la kon loolu euh, nii lañ ko fas yéenee dunde la waaye lu jiitu loolu nag am na waxtaan wu koy laytaay waxtaan woo xam ne sëriñ Mbàkke Abdourahman mi moo koy def euh, ànd ko ak sëriñ Sam Bousso mu war a waxtaan ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni doon dundee ak njabootam loolu nag jàpp naa ne lu ama am solo la loo xam ne képp kuy yor kër wala nga yor njaboot déglu waxtaan woowu dana am solo ci yow Euh, lu jiitu loolu nag am na ay programme yoo xam ne dana dana am muy fukki waxtu bu bu jotee incha allah ci la programme bi tàmbali Serigne Bolle mbay dana jàng ba fukki waxtu yu teg fanweeri minute su noppee am na kuréelu Muxaddamatul Xidma buy jàng su noppee nag fukki waxtu benn di onze heures ci la waxtaan wi di tàmbali ba minuit incha allah li tàmbalee minuit nag ba bët set la teg nag ñetti kuréel yi ak barsan bi nga xam ne. Euh, sëriñ Afia Bousso Ahmad sëriñ bu Bousso imaam moo koy jiite ak sëriñ Ahmad Badiou mu Cheikh Amadou Fadal ak sëriñ Abibullahi Jatra nga xam ne suñ jàngee benn buntu ci barsan danañ jàng bunt ci jees bu jàng ko ci muxaddimaat jàng ko ci muwaay bu noonu lay fanaanee ba bët set loolu nag kenn ku nekk xam ne ne ci pénc mi ñu koy defee euh, ñëpp gis nañ ne wax dëgg yàlla gàmmu gi ñuy organiser ci penc mi bari na ñu nekk ci yeneen dëkk yi sax bu waxtu sàngam jotee dañuy ñëw ngir defee ko ci penc mi am na sax ñoo xam ne ci yeneen dëkk yi lañuy lañuy la ñuy jóge di ñëw loolu nag bu ñu ñëw ñu bàyyi xel tamit ne sëriñ bi eh, lim diglee ñu koy ñu koy warmaale penc mi ak li muy bañ ñu ko fiy def loolu tamit day wéy ci guddi gàmm waaye dafa raw sax nag ci guddi googu nga xam ne da ngay ñëw ngir ngir ngir sàkku si barke kon su ko defee ñu indaale sàmm worma ji luñ man ci góor ñeeg jigéen ñi bañ a jaxasoo xool colka yi bu baax a baax a baax xool tamit ni ñuy toogee rawatina jaxasoo bi bëri na ñoo xam ne ay njaboot la ñu doon dañuy ñëw indi seeni i basang euh, di jaxasoo jaxasoo boo xam ne loolu bokkul ci kuy sàkku ba ci guddi gu mel noonu kon loolu yi ñu ngi koy bàyyiloo xel nit ñi bu baax a baax ni ko noonu ci wàllu organisation bi tamit lu aju ci wàllu ñam yi ñu indi moo xam ñam yu ñuy jëfandikoo la wala yu ñu naan loolu it ñi ngi sàkku képp koo xam ne indi nga ay ñam nga dem teg ko ci loxol daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu séddale ko ngir cet gi gën a mën a sàmmonte ak ak barab bi loolu it ñi ngi koy ñi ngi koy sàkku euh, ñi nga xam ne teg nañ leen ci bunt yi nga xam ne fépp fooy jaar rek da nga fa fekk ay ndaw wet guñ la orienté ne la fii la góor ñi war a jaar wala fii la jigéen ñi war a jaar wala nii lañu war a toogee ñu bàyyi xel ci toogin woowu te def ko ngir wormaal barab bi loolu daal incha allahu rabbi nañ ko daa defee danañ ko ni defee kenn ku nekk xam na barab bi niñ ko daan nose ci wàllu organisation ñu bàyyee ko xel noonu te ñëwee noonu jiital worma ji te fas yéene taatan euh, fas yéene jariñu Euh, euh, ak nu ni noo xam ne dana raw ni ñu ko daa amee ci kàttanu yàlla sunu borom tabaaraka wa taala su ko defee ñu ngi tënk kàddu yi foofu di séntu ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ñaanal it mboolem jullit yëpp sunu borom defal ñu ci barke guddi gi ñu jariñu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa kay jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko ci ni ñuy organiser gàmmu gi ci jumaay Touba. ñu bàyyi xel bu baax a baax soññee yi mu def ci ñi nga xamante ni dañuy ñëw ci jumaa ji ci pénc mi ngir ànd ak ñun ci gàmmu gi ñu bàyyi xel war may barab bi ci wàllu jaxasoo ci wàlluk cet gi fexe itam ba ñiy ñëw di gàmmu si lu ñu man ci toog di jàng wala zikar ñu def ko waaye bañ a indi rek seen i wala seen i mat laa tëdd ci jumaa ji di nelaw te loolu dañ ko ciy seetlu ci at yi weesu yëpp kon ñu ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax kon daal mbokk yi guddi gaa ngi noonu di guddi gàmmu guddi gi nga xamante ni sëriñ bi soññee na ci bu baax a baax ñu koy màggal ci sunna ni ko sëriñ Saam waxee tanzimuhu bi ti sunnati naa lil jannati màggal ko ci sunna moo ñuy wommat ba tabal ñu na kon nag nañ sàmmonteeg loolu bu baax a baax a baax kon lii mooy woote bi nga xamante ni moom la daairatu muxaddamatul xidma ànd ak daairatu rawdu rayaxiin doon woote ci guddi gàmmu gi ci ndigalul cheikh mouhamadul taxaa Euh, ci kilifteefu Serigne Afia Boussa al imam ak Serigne Ahmad Badawi moom Cheikh Mouhamadul Fadal kon ñu ngi woo ñëpp di leen séentu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.